waa di leen bëgg yéen ñëpp di leen di wax ne série bi moom vraiment neex na quoi série bi moom neex na benn rek moo ci am problème ko mooy buñ wàññi woon maanaam mm, wax yu agressif yi lu mel ni Marème moom mare moom wax dëgg yàlla moom man moom neex na ci bi lool ndax dafa nuroog sama soxna wax dëgg yàlla ñoom ñaar benn lool mais dafa agressif quoi maanaam mooy wax ji dafa vulgaire ba ëpp quoi mais su ko tuuti rek dana neex numéro 26 bi moom vraiment. neex na lool mais nag man li ma jaaxal mooy pa pa pa bi mooy Boubacar la xaw ma pa bu mom xanaa moom lim la jël bëri na quoi moom boo xoolee fu ne rek fa quoi euh, daal doy na waar xam naa ne moom fu mu mujj daal gisuma fu mu mujj yaakaar naa kaminam du neex quoi. ça va ça va yéen waa maîtresse ça va nuyu naa mais Cheikh Ndiaye il est temps mu jël responsabilité xam ne ñaari jabar la yor te ñaari jabar ku leen yor da leen a war a yemale parce que Marème tamit euh, jabar la jabar la daf leen war a yemale mais tamit Marème man ko ma neex la parce que tamit nekkul xale bu déggul ndigal euh, goro mënoon na ko woo wax ko mu defanteeg moom mais def ko. Mhm. salaamaaleykum salaamaaleykum. ñu leen di nuyu leen ziar leen baalu àq si weeru koor gi di ñaan ñu yàlla buur bi subhaanahu wa taala boo leen si njéggal yi ci fukki fan yu mujj yi ñu ngi rafetlu émission bi bu baax a baax a baax baax euh, ñu bëgg a joxe suñu participation ci épisode 36 bi ci maîtresse euh, vraiment neex na trop macha allah ñun ñu ngi ciy dund ñu ngi siy gis suñu bopp bu baax a baax a baax a baax. mais nag euh, euh, ci cadre kii laa bëgg a wax euh, Moustapha ak Racky mu nekk couple bu ma neex parce que Moustapha mu ngi wane ni góor dëgg nii lay mel xam nga mu ngi wane ni jantal mel nii lay mel am na loo xam ne boo amul itam bu la kenn yàpp man dama kontaan ci Moustapha dama kontaan ci Moustapha trop trop ni mu doxalee mais nag après na ko jéem a baal jéem ko comprendre xam ne Racky moom la bëgg xëy na dañ ko bëgg a def loolu loo xam ne nekkul te mooy loolu. Euh, ñu ñëwaat ci sama côté sama doom baay Marème Diagne Diagne naal macha allah dama gën a kontaan si yow gën a bëgg si yow macha allah yow moom yow dundal rek waaw fi nga téye foofu la jigéen day am fu la mot fees dell place am Cheikh Diagne yooyu tam nekkal responsable waaye bañal yenn yi xam nga di assumer xam ne yow góor gi kër gi benn kàddu moo fi war a jib ndax yaa fi tàkk tuwéy xam nga na dëgër mooy loolu di kontaan bu baax di leen ñaanal nag seen émission bi dem ci kanama kanama kanama kanam série bi neex na macha allah di leen ñaanal jaamu àdduna ak jaamu àllaaxira di ñaanal korte jàmm ci barke Cheikh Mountakha jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum yéen Xew TV maa ngi leen di di leen ziar bàyyi rek si jàmm baax ah épisode tey boobu macha allah neex na trop trop noonu Marème moom gën naa ko fan billaahi non nii la nit ki day mën place am man booram wax dëgg yàlla man moom moom laa àndal parce que laala daf ko tooñ trop. salaamaaleykum nuyu naa leen ziar leen maa ngi leen ci jàmm baax baax Cheikh Diagne daal ngeen war a wax Cheikh Diagne daal ngeen war a waxal moom daal moo bëgg a tas këram Cheikh Diagne moo bëgg a tas këram de Marème li mu def dara nekku ci ndax su fekkoon Cheikh Diagne jox na ko li mu moom kon amul droit sax di dem kër laala waaye jigéen bu nekk jigéen nga. am na loo xam ne suñ la ko defee moom day metti sa biir xol noonu rek la mënoon a def su defee noonu beneen yoon bu koy def dina ko sóor Marème yow tamit bul tontu bul tontu sénégalais yi tontu ndax fii moom boo solee yére bu gudd sax ñu ne lay sa yére bu na yaa koy dëgg nga sol yére bu gàtt ñu ne la gàtt te artiste mbubb la booy sol rek warul ëpp warul la manqué rôle la buñ lay jox nga koy joué ni ñu la ko joxee noonu nga ko mën a joué loolu kese la waaye ku ne xam na ni artiste moom noonu noonu nga mën a jouer mbubb la rek booy sax waru la ëpp waru la manqué ñu nga la ko joxee noonu nga koy jouer kon bul tontu li ngay def moom wax dëgg yàlla macha allah neex na rafet na amul benn fóot bu ci nekk. salaamaaleykum maa leen bu baax baax di leen màggal mm, bi. Mm, 36 bi épisode bi li mañ njëkk a wax mooy diggante Jalika ak Joor nim nar yàqoo daf ma xaw metti ndax ñoom ñaar meloon franchement daf ma metti euh, di wax tamit euh, mareem jigéen ma neexam dafa jonge waaw jonge daal nag moom macha allah da ko def ëpp bëgg naa jigéen bu jonge euh, laala tamit commencement film bi neexoon na ma trop mais dafa mujj yàgg ba mooy loolu ndax mu muy doxalee ndax wujj daal pour man fi may wax chaque jour rek jarul yenn yi waaw jarul te Cheikh Diagne tamit bu ëllëgee tamit bañ a di jël ay yàmbur di ko jox keneen ndax moom bi ko ma Mariam woowee mënoon na koo waxee neneen nu bokk teg ni mu ko tontoo mënoon na koo waxee neneen nu bokk ni mu ko tontoo waaw. Lalla dafa sañoon mu def lim naan def continuer ki yam di dund normal waaw defal jëkkëram lim ko daan defal di ko wax yu neex yi mu ko daan wax bañ cee yàq dara waaw mujj moom du dara naa ngi jégal bu baax. waa nu ngeen def mbaa yéen ci jàmm ñoo leen di siyaar baax di leen baalu àq ci koor gi ñu génn nii ñu ñi ci génn. xam naa ñiin waa Sénégal yéen a ci biir ba léegi ñu ngi leen di baal bu baax ñu ñaan yàlla jéggal ñu ko ay déwén ak yeneen ci bi waaw seetu nañ épisode bi jàll vingt suma six su ma juumoon waaw waaw tout ok lépp nice na mais mère bi moom na moderne ay langage am rek xam ne mare moom jabar la comme lan la mais dafa war a gën a nice moo gën ma ne ko cage beeg di utiliser moo yooyu noonu loolu neexul ci waate seex tamit na gën a góore rek seex daal moo desee góore kenn ku nekk da ko war a jox ayam loolu mooy yoon waaw na assumé ay responsabilité ndax moom moo préféré takk ñaari jabar kon na gën a assumé ay responsabilité jël engagement am wane ne tuway ji moo koy takk affaire bi loolu la mu leneen bu baax ñoo ngi kontaane bu baax bàyyiwuñ kenn. maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax di kontaan te Marème rek ak am fullaam ak am faydaam waaw jigéen fulla da koy nuru ba mu bako su defu woon noonu perte ayam seex daa takk ñaari jabar bu pare ragal ndax ñaari jabar moom boo leen takkee fa nga aayee rek fa nga war a ji amul lu di dem si beneen jéeg bu nga ayewul toog fa di reer xawaare loolu du yoon ndax moo may fit Marème pour mu ñëw këram ba mu ko su ñu ko woon maa ngi ñëw kon Marème du ñëw këram wala mu waxoon ko jeneen wax ju neex joo xam si ne Marème dina mën a di su ñu ko woon damaa am gan may ma tuuti ban dem kon Marème dina comprendre waaye ni ko waxee moo tax ma Marème ñëw Marème nag kontaan naa si moom te bëgg si moom ni mu def noonu rek moo koy faj su ko deful ñu yàpp ko. jéeg day mat jéeg ba kenn du sàcc ayam kuy xool bañ sàcc ay rek si yow la salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen seen wàccuwaay bu baax a baax di kontaante Marème rek ak am fullaam ak am faydaam waaw jigéen fulla da koy nuru baamu ba ko su defu woon noonu perte ayam seex daa takk ñaari jabar ba pare ragal ndax ñaari jabar moom boo leen takkee fa nga aayee rek fa nga war a ji amul droit di dem si beneen jéeg bu nga ayewul toog fa di reer xawaare loolu du yoon ndax moo may fit Marème pour mu ñëw këram ba mu ko woowee téléphone su ñu ko woon maa ngi ñëw kon Marème du ñëw këram wala mu waxoon ko jeneen wax ju neex joo xam si ne Marème dina mën a di su ñu ko woon damaa am ay gan may ma tuuti ban dem kon Marème dina comprendre waaye ni ko waxee moo tax ma Marème ñëw. Marème nag kontaan naa ci moom te bëgg si moom ni mu def noonu rek moo koy faj su ko deful ñu yàpp ko jéeg day mat jéeg ba kenn du sàcc ayam kuy xool bañ sàcc ay rek si yow la. asalaamaaleykum ci loolu leen ne a ngi ci jàmm seetaan na épisode tey 36 non Marème man dama ko fan Marème maa ko bëgg ci sama xol. Marème moom moo joué théâtre mooy xoromu théâtre bi c'est vrai que dafa vir dafa xaw a vulgaire Hmm, sëtta waxam dafa xaw a vulgaire mais macha allah toj na fi Mariam ci tontu xale tontu xale wax rek yal na ko yàlla lafa cat mais Jalika ak xaritam bi non Jeyla moom wax dëgg yàlla def na erreur hmm, la mais dama kaa xaw a yërëm tuuti parce que euh, bëggul lu war ka waaye tamit xas na ba bëgg biram kenn mënatu ci dara mais série bi macha allah neex na trop trop trop ñëpp ñu ci concentré wu macha allah neex na daal te yaa na leen laal na fa cat mu gën a continuer. salaamaaleykum waaye maîtresse ci lu ngeen nekk waa di rafetlu émission kii bi série bi bu baax di wax Cheikh Ndiaye moom. <laughs> amoo ah, la wax biram parce que yow déjà li laa la wax rek tey lay soo a xam ne yow ak ma ak yow ak biram yéen bokk direct waaw parce que sa jikko rek la yor amoo lenn loo xamante ni nii war nga ko mën a wax te tamit mm, biram lim nana def moom wax dëgg neex yàlla ma rafetlu ma ko dara parce que Jalika ak George dañoo yàgg ba pare George tamit lépp loo xamante ni Jalika dund na ko ci sëyam bi rek xamal la ko te moom daf ko daan gëmloo kii du ko bu baax kon tey su demee ba nga xamante ni bëgg na koo takk nar ta def lu rafet daal mën daal yoon moom lim nar a def rafetlu ma ko dara laal la nag na góorgóorlu moom laa kiy wax te def comme ni defoon ci commencement bi rek. salaamaaleykum wàllu xew TV maa ngi leen bu baax yéen a ci jàmm bu baax a baax. waaye wax nag ci série bi maîtresse seetaan nañ ko ba pare neex na mais nag Marème Marème moom Marème baadoola na Marème daal baadoola na moom bi mu ñëwee kër Cheikh fekk fa ay gan rek loolu waroon naa tax sax mu sàmm deram mais gan yi dinañ ko yóbbu yow ñëw di jël si sa jëkkër fekk fa ay gan xas ko ba mu ràbb sa jëkkër. déjà sax wan nga ne wan nga ni leen man faalewu ma sama jëkkër fekk ko ci ay moroomi nawle mu tong xas ko ba mu ràpp xas jabaram ba mu ràpp xas gan ña ba ñu ràpp loolu tamit dafa moom daal jëkkëram moom amul amul ci moom daf koo manqué respe ba mu ëpp parce que bi mu ñëwee fekk fi gan ñi rek waroon naa sax tax mu sànku sutura bàyyi ba beneen yoon mu wax ko lu mu koy wax parce que nit moom bu amee la naqaree du noonu nga koy fajee du xët-xët nga koy fajee du xët-xët nga koy fajee da ngeen di bàyyi ba wéet nga nga wax ak moom mu wax la li mu bëgg ak li mu bañ kee tamit wax ko li mu bëgg ak li mu bañ loolu mooy régler euh, coow mais du leneen Marème moom dafa baadoo la euh, Biram nag moom li mu bëgg a def ànduma ci ndax euh, xaritu jabaram bi mu bëgg a takk moom ànduma ci de ànduma ci de ndax ñoom ñaar seen diggante sax dina yàqu. ñoom ñaar seen diggante dina yàqu de joor ak jalika seen diggante dina yàqu ndax ay xaritu benn bakkan moom mu ngi mu ngi bëgg a takk joor bëgg a récupérer waa jalika ndax xam naa moom moom ba léegi moom mi ngi ci ginnaaw jalika moom ba mi ngi mi ngi topp jalika léegi loolu mënul nekk wax dëgg yàlla man biram moom loolu ànduma ci loolu moom ànduma ci lii moom dina tax sax moom kenn dootul wóolu sa xarit parce que Jalika bu yëgee lii dina tax kenn dootul wóolooti sax xarit tamit lii moo tax ñu bari sax seeni xarit duñ ko bëgg a présenter seen jëkkër yooyu li daal moom neex na moom mais mais mais moom li mu bëgg a def ànduma ci waaw ànduma ci Moustapha tamit na toog déglu Racky na toog déglu Racky waaw loolu daal la amoon lu ma ciy wax. salaamaaleykum salaamaaleykum nuyu naa leen ziar naa leen bu baax a eh, baax a baax. xam naa ne yéen a ngi ci liggéey bi di si def kent ay kantan xam donc yal na yàlla xeeb dool yi mais nag euh, en fait euh, dama xawoon a jàpp temps yëpp moo tax euh, mais nag maa ngi doon seetaan maa ngi di suivre affaire bi tey mën naa wax ni alhamdulilah si xalaat bu nice waaye si gis-gis bu nice yàlla def mu sotti ànd ak euh, ni ñu ko gëmee ni ñu ko jàppee donc alhamdulilah parce que waxoon naa leen si kaw Racky ak papam boobu waxoon naa leen ne sama gëm-gëm sama gis-gis kooku mooy papam parce que boo xoolee li tax ma gëmoon ko li taxoon ma gis ko nit euh, su amee yërmande benn buy daw si diggante moom ak góor wala bu dee jigéen Euh, muy daw si moom aussi sa xew yi mu lay jox mooy que deret moo fa feeñ noo weñ ko gëmee woon en fait mu ngi doon daal xam nga di fi wax alhamdulilah mais nag ñu amaat beneen jàngat buñ defaat amaat beneen gis-gis bu ñu defaat bon ñaar benn bi si côté Jalika ak copinam parce que en fait mu ngi jéem a tuur yondom Jalika di ko wax ne day voyage yi dëgg la buñ ko takkee day voyage moom c'est sûr mais gis nga tey mu ko na a jural mu ngi xalaat Jalika bàyyi ka te pourtant man gëm naa ne Jalika du ko bàyyi du ko bàyyi hmm, gëm naa ne aussi moom mën na changer biram bu sëy ak moom mën na changer biram sa veut mën na fexe ba biram bàyyi naan bi parce que moom dafa dafa dafa dund si milieu boobu lu bari moo tax dina si man dara quoi parce que doon na si jéem lu mu mën te gëm naa ne bi bu ñu sëyee dina si jéem lu mu mën foofu mala gëm naa ko mais nag rafetlu ma moom mu def loolu quoi comprendre parce que Jalika xaritam la donc man rafetlu ma woon loolu quoi mu def ko. mais nag suñu jógee si googu ñu ñëw si yaayi rakki mu nekk beneen histoire bu doy waar bu nit boo du xool wooyu boo doo comprendre parce que soo dëggoo mère bi mu ngi wax ak paa bi ko wax ne c'est pas paa bi Jalika mais paa bi bëgg na Jalika xam nga dafa fàtte mu ngi koy wax ne lépp nu mu dugg yow la lépp ax yow donc paa boobu man dama naan moom moo créé woon papi Racky ba tëju ko moom moo tax ñu tëj ko boo xoolee ba histoire bi fa muy mujj boo moytu moom moo tax ñu tëj xaw ma nag si ban chance parce que paa boobu góomu ne bon na bon boo xam te gisuma si moom bon goo xam te ni dina def benn délit bi ñu koy tëjee donc paa moom moo tax ñu tëj mais nag le problème mooy que yaayi rakk yi ak paa euh, bi napp rakk yi lan mooy seen problème loolu mooy suñ problème ñun fu ñu xamante wala nan la ñu def ba xamante wala histoire bi nan na demee loolu mooy suñu problème mais ñu am si jàngat bu rëy rëy rëy rëy am si ay jàngat yu rëy parce que man si biir jàngat yi tey dama naan paa boogu tey. moom moo créé Papi Dialiga ñu tëj ko moo def le tout ñu tëj ko xam nga tout mu ngi doxaat ñëw moo créé Papi Racky quoi safla ñu tëj ko xam mais mu ngi doxaat ñëw bëgg a doxaan Racky c'est parce que bëgguñu Racky xam papam bon Racky aussi ma koy wax ni bu mu xaddi si côté moom Moustapha na waxtaan ak moom rek na gën a waxtaan ak moom Moustapha dina dem ba comprendre que suñu ñëwee si Marème ah Marème gis nga bu dalee xëcc laal taf ko si wetam xëy na dina am sens si sëyam mais su continuer ni muy dundee nii mën na ko yaaxal sëyam mën na tas donc euh, loolu lañ fi amoon jàngat bu ñuy def mais nag le problème yi euh, xëy na peut-être su ma seetaanee épisode 37 dinaa gën a mën a comprendre après tuuti mais man pour le moment sama problème bi may xalaat wala ma si xool si sama gis-gis wala sama jàngat yaayi Racky paa bële xaw ma nan te mu napp man ñaar ñoo mooy sama problème donc ñaar ñoo gaay suivre bu baax a baax mën a xool fen mooy seen histoire man ci wax lu bari donc euh, voilà ñu ngi leen di ziar ñu leen ñëpp di leen baalu àq si weeru koor gi di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ni déwénati yàlla nañ ko fekkee ay déwén déwén feete que ñun ñëpp. parce que ñun ñëpp yàlla def jàmm si réew mi def jàmm si dëkk bi parce que jàmm mooy lépp. waa salaamaaleykum baax di leen ziar tey bi neex na trop neex gis naa yi a ngi koy seetaan mais lan la dafa ñàkk fayda man su ñëkkal may moom ma dem su ñëwee sama kër ak bëri xam yi soo xam gi sakkan jooju du fi ñëwee noonu di ñibbee noonu moo koy bàyyi noonu muy dem. bu doon man nag la ko def tey jii du yomb de du yomb trop te laa lim nangu nii dafa yomb ñu ko nang du doon moom du ñu ko nangu de su doon ñeneen a tey jii Marème balaa mu fay jóge na fa jële la neen tey. asalaamaaleykum waa série maîtresse na ngeen def mbay yéen si jàmm ah Marème moom moom laa àndal wax dëgg fa yàlla fi mu ko jàpp moom foofu la bu mu teggi loxoom benn yoon parce que woo na ah, si woo na Lalla si jàmm waaye Lalla daal bëggul jàmm tamit ah Marème daal moom man maa la bëgg a sam bopp ndeysaan hmm, fi mu ko jàpp daal foofu la man si yow laay roy. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ah tey nag dama xaw a tàddee mais affaire yi neex na jax na jax na jax na billaay wallaay ñun ñaareel ñoo xew. ñooy ay bañkat ñooy ay sëykat nu tooñ moom mën nañ ko gisee tooñ nag mais duñu tooñ mareem daal man ni ma la faralee ëpp na mareem yow laa àndal mareem yow laa gëm billaay wallaay la nag dala jël rek yano la nag te na la wàcce nag billaay ndax lii nag du dara nag wujje du dara wujje du dara am na loo xam ne sax moom mii magu kër gi nag wax dëgg yàlla nag moo ko watta sax nangu ah moo ko watta nangu ni nga doxalee noonu la waaye meer jaañ nag mere naa ko ndax yaay moom warta jeng même bu dee da ngay jeng sax waroo ko fësal xam nga li tax waroo ko fësal sa doom yaa xamoo kom ci gën a bëgg même bu fekkee laal moo jiitu ci kër gi di def lu baax def lépp marem nga jàpp ne def na erreur wala def na sax woo ko na ko marem damaa bëgg nga def nii nga def naa waaye nag woo ko di ko xas ah jamono ji nag koo xas mu xas la bu la rusul xas la waaw bu la rusul xas la ndax nag ku mu neex nag yaa moom sa xol ku mu neex nga féeteeg nit ba ñëpp xam ne moom nga féetal mais di xas kenn ndax nit moom lool moom rafetul loolu moom rafetul wax dëgg yàlla mais jaañ moom rafetul moo ko moom waaye rek mën na am lii la ñëpp yi dund moo nekk ci kër yi lii ñu joué moo nekk ci kër yi nan dañ dañ ci gën a jàngaat rek nañ ci gën a jàngaat mais lii moo nekk ci kër yi lii moom moo nekk ci kër yi wax dëgg yàlla Sénégal lii la ñuy dundee wujj yi lii la ñuy dundee moo xam nga bokk ak moom kër moo xam nga bañ a bokk ak moom kër lii la wujj yëpp di dundee macha allah maa ngi leen di ñaanal maa ngi leen di ñaanal foo rek maa ngi leen di ñaanal incha allah merci beaucoup. salaamaaleykum salaamaaleykum ah, seetaan naa série bi mm, nice na trop wax dëgg na trop tamit. Marème nag nu mu defee neex na ma trop sax wax de fa parce que dañ ko tooñ te dañ koy traité noo xamante du noonu hmm? série bi daal neex na daal seen kii bi daal macha allah ma leen di félicité baax baax di leen di wax euh, bonne continuation merci beaucoup. asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw lu xew TV bi leen di nuyu di leen ziar bëggoon na commentaire ci série bi waaw ah, wax dëgg yàlla neex na de tam na sens trop ok nekkuñu Sénégal sax mais ñu ngi koy suivre de man de wax dëgg yàlla du may raw moom ah, waaw waaw ah, di wax ci kii bi rek séeru bi rek bëggoon ci commentaire comme ñëpp di wax ne affaire yi wax dëgg yàlla neex na séeru bi wax ne si diggante Seex ak Marème Marème moo wax dëgg yàlla ci dëggam la ne xanaa ah, kay attaque bi attaque moom dañ ko tooñ moo wax dëgg yàlla ci dëggam la ne ndax ayam buñ ko ko joxoon ni mu waree du demee noonu ndax Seex moo ko njëkkoon a wax dëgg parce que biñ jógee liñ demee biñ ñëwee Marème daa bëggoon ñu continuer ci kër gi mais dana ko su ma ko defee loolu damay am bàkkaar ba dafa mujj. dugg ci dem ma rek moom it woon dëgg ayam ñëwee bu daa war a jéngu moom it jël ayam ba dëgg yàlla de ma rek moom ci dëggam la ne laala kay moom it moo war a wàcc moom it wane ne kii ko comme rakam rek affaire yi moom ñoom ñoo war a ànd daal jàppale seen jëkkër comme affaire moom loolu ci dugal génnewul la ci waaw waaw di wax si diggante Tafa ak Tafa moom wax yàlla war a comprendre kii moom it ndax xam na ne am yaayam bëgg ko te amul kenn ku mu yaakaar te fexe na ba ñemeloo ko góor te waxoon na ko ndax comprendre quoi ma rak dama ko yëram seek dafa doo nga amoon na ku muy partagé ay affaire am da ko yëram quoi na ko ah, nga maire moom it fu mu mujjee noonu la quoi ok ñu bu baax nag ci guddal bi asalaamaaleykum euh, Lu Xew TV euh, man je suis très content de pouvoir vous joindre. J'ai cherché votre numéro depuis longtemps, mais j'ai pas pu, euh, je savais pas comment exactement participer aux commentaire Mais alhamdulillah, maintenant je peux vous contacter. Juste pour dire que man bég naa lool ci maîtresse d'un homme marié. Je sais que Marème euh, Lalla Cheikh ñoom ñëpp dañ leen fabriquer en fait du la ñu mel naturellement. Euh, donc, euh, Mangi féliciter les réalisateurs, les concepteurs, les, les, les directeurs artistiques maa ngi leen di féliciter si seen un euh, jeu, si seen une euh, réalisation, c'est très bien fait. Euh, xanaa di leen encourager rek di leen naan encore nañu nañu gën a yokk nañu gën a gestu réalité sénégalaise yi ñu woone ko à un moment demoon nañu ba yaakaar ne le mariage entre entre euh, et Cheikh allait tout gâcher, mais maintenant ils, ils, font sortir un autre thème, la vie de couple entre les, les co Et c'est un débat très très intéressant parce que dès on est, la faiblesse de l'homme, la faiblesse des femmes, mais surtout encore une fois qu'il y a des hommes mariés qui ne respectent pas correctement les règles du mariage maanaam dañuy aaye ci kii ñu toog ci kay ba ba ba heure bu leen neex bu ñu dem fale wala ñu tëb fale wala ñu def ni ça loo xam ne moom dañ ko war a wone ñëpp gis ko ñëpp comprendre te euh, ñu mën cee jàng parce que nit ñi wax dëgg yàlla boo demee ba takk ay ñaari jabar war nga leen respecté surtout war nga respecté ku nekk aayam ak euh, ku nekk li la war daal war nga ko respecté en tant que nom un homme responsable donc man je ne culpabilise pas Cheikh Marème wala Lal parce que dama xam ne li ñu def dañ leen ko defloo donc euh, c'est bien nañu woone côté boobu bu baax nit ñi xam erreur yi ñu mën a juger seen bopp parce que moo am ñu bëri dinañ gis seen bopp euh, l'autre côté aussi li ma bëggoon ñaax bu dee vraiment mën na nekk nañ góorgóorlu nañu góorgóorlu euh, ñu woone suñu cosaan ñu woone suñu tradition parce que man maa ngi seetaan fii au Canada te dama invité sama xarit yëpp tubaab yi ñu seetaan mais ñu ne waa film bi c'est original xanaa bii du Afrique ma ne la ah kay Afrique la kay te c'est très très très réaliste c'est vraiment réaliste te ñoom li leen gën a neex mooy lan la nu muy solo. wala jalixaan ni muy solee ak lot loolu moo leen ci gën a neex damay seetaan man ak ay xale yu bëri ak euh, sama benn xarit ñoo bokk liggéey dañuy seetaan seen kër à la télé mais je vous assure que xale yi li leen gën a neex mooy colin lalla Colline euh, Dialikha ak euh, Marème les traits surtout les traits de Marème et les traits de Dialikha les attirent beaucoup donc maleen di ñaax encore une fois nañu yokk la culture nañu woone côté sénégalais nañu woone suñu habillement nañu woone suñu waxin nañu woone ni ñuy doxee ak kii yëpp quoi parce que xamuñu ñu donc c'est un film qui nous permet vraiment en tout cas nous en tant que sénégalais nous sommes fiers de pouvoir regarder ce genre de film à l'extérieur Alors, euh, euh, à l'équipe, beaucoup d'encouragement à Marem, à Lalla, à toute l'équipe d'Al, à Moulki Akele, à, à toutes les, toutes, tous les personnages, euh, tout le monde. félicitation et je vous encourage encore une fois. Merci beaucoup depuis le Canada. ci wax ak sama xar mbokk xale jigéen yi lii sax daf leen war tax yu gën a yeewu lii da leen war a gën a yee xoola mbaram instant li muy dund ni su fekkoon ne balaa seex du ko takk dafa yemoon yaakaar naa li yëpp di ko dal mu topp seex topp bëgg-bëggu seex mu ko indi kër jabaram di ko yóbbu fu nekk lii rek tax instant yi kenn nawloolu ko du laal du yaayu laal du rakku cheikh dafa war a tax lii dafa war a tax xale yu jigéen gën am fulla seen bopp ma man loolu la am ci lu may commentaire ziar naa leen maa ngi leen di bu baax yéen ñëpp mais tey man dama kontaan ndax tey moom Marème moom dafa toj Sénégal toj àdduna Marème tey dafa wane ne jeeg biir la ñëw na def li muy def yóbbu jëkkëram ndànk wane ne jéeg la te moom moome man daal Marème neex nga ma macha allah xale bu jigéen bi mën daal Marème ak Cheikh jaañ moom añu yàlla yàlla fa cat bëggante nañ ah ñi daal musal ci kon Marème daal neexul ba neexul mais affaire bi yow la te man maa ngi wax benn affaire moo ñuy wax naan série bi dafa ñaaw dafa salte affaire yooyu noonu Nouvelle moo gën a moo gën a bon lu muy teg te xale yi moom rek la ñuy seetaan moom rek la ñuy seetaan mais man li ma li ma jaaxal mooy lan moo tax Sénégal yi bëgguñu seen bopp lan moo tax ñoom ñu ne bëgguñu suppu kànja keneen du lekk suppu kànja mais am na ñoo xam ne tey suppu kànja daf leen di déranger parce que dañ ne naan dafa tax ñeex bi dafa tax mais am na ñoo xam ne ñeex suppu kànja la ñuy fajoo ñu ne série bi noonu la mel ci ñun daf ñuy faj daf ñuy faj. Ah, dafa neex waay lii dafa neex